asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nu ngi nuyoo ci turu jëriñ suñu Madu Faal ji suñu Faal suñu Faal Faal ji suñu Madu Faal ñaan suñu moom yàggal ak dundam te yërnu ko mooy ni yëpp suñu Madu Faal gépp hmm, góor yi jigéen ñi mag ñeen ndaw ñi di fàttali nag liggéey bi rek na ñu ko daan waxee moom waxtu nekk ma ngi fi ma ngi ji ci la ne ci la nelu waaye dafa am ci mbaar yi nag moo xam mooy mbaarum ñeenteel mi duñ koy war a xadd ci ajuma ji ñu seen mooy courage bi suñ bëggoon nag yow yow ko ñu xëy mooy seen jëriñ moom waaye ci kaw kàddoom nag dafay day yóbbaale kàddu yi kilifaam yëpp nag ndax léegi moom ñëpp a bokk waaye ak doyloo doyloo kilifaam moo tax ñëpp bàyyi ko ci kanam léegi bii bi bi bi mu tolloo ci war ko ko fa te maso yi ñoo wax ko ak ministre yi wax ni fii ajuma dana fi noppi ñu ji ñu seen rek tey jii la. ñetti fan talaata àllarba kon aju kon ajuma la juróom benn fan weer yi noonu la ajuma ji ñu siin rek la mu juróom benn fan weeru muharram tam xarit suñ nu kóore ci bâtiment bi loolu loolu ma koy wax ci tur tur kilifa bi yëpp nag te jiit du sëñ Cheikh moom seewul soxna di ko sëñ Cheikh Ndiaye Meng mu ngi sama mbéggal ak dundam ak dundu ga waaye ci tur gi nga xam ni waaye def ci liggéey moom moom moo ko jàppale ndax mooy mana wara kabi bahip di siya mon benda siya mon musa ya, jum no kai mo si mon benda mo si rafal kun siya mon musa jin si rafal jin si si si rafal mo si mon benda eh, kadu kadu gyo ba la kadu kiri fam yep nak ku jot kadu ko nan ko soñi ko ni jin ma ngi ndaw yin aljum jin si lo kuras bi a telephone bi mo gona ga raji bi mo gona ga ne ci auto du ko yegle na ko ñëpp yëg rek te ku yëg ko ne jotali ko juróom benn fan weer wi di weeru Muharram muy weeru Tamxarit wi muy kuraasu mbaaram ñeenteel ni fii ci daara Sëriñ Tuubaa ji ñu liggéey jërëjëf Sëriñ Fall di Sëriñ Fall ma ko yëgle ci turu kilifaam yëpp wasalaamaaleykum. laa ilaaha illallaah